mboola murid yi ci biir Cheikh Anta bu leen nelaween maam Cheikh Anta Mbacke maam Cheikh Anta Mbacke ñu gën koo xam ci borom gaawaan ak Daaru Salaam am na ñu naan ko sax boroom dërëm ak mu ngi gane àdduna ci dëkk bu sell bii di Poroxaan atum 1866 mu gane àdduna nag ci ñaari wayjur yu sell di Serigne Maam Mor Anta Sali Mbacke ak soxna maam Asta Walu ak ñu gën koo xam ci soxna maam Anta Ndiaye Mbacke moom maam Cheikh Anta Mbacke nag wayjuram mi ngi ko tuddee naar bu ñuy wax Mouhamad ibnu Habiballahi di Sidi Muxtaar moom maam Seex Anta nag mi ngi bokk ak ku tedd ki xaadimu rasul wenn waajur wu góor di sëriñ Maam Moor Anta Sali maam Seex Anta am na ñu mu bokkal waajur wu jigéen di sëriñ Mbàkke Anta Mbàkke ak soxna maam Faati Mbàkke ak sëriñ Afiya ak soxna Anta Sali Kan bi matee dal njàngum alxuraanul karim waajuram sëriñ Maam Moor Anta Sali moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw waajuram ñu jébbal ko ku ñuy wax sëriñ Ñang di ab xaritam mokk maam Cerno Birahim borom Daaru Mooti waaye nag yàgguñu ci loxoy Serigne Niang ab diir la ko waajuram yóbbu ko ci ku ñuy wax Serigne Mor Seck euh, ci dëkk bii di Cumbuleen waaye nag taxul mu mokkalee fa alxuraanul karim ginnaaw ba waajuram euh, jëlaat ko jébbal ko Serigne Dame Abdourahmane Lo mu wéy di nekk ci loxoom ba mokkal alxuraanul karim euh, ginnaaw loolu njàngum xam-xamam ñu jébbal ko magam Serigne Mamor jaara boroom saam ñu gën koo xam ci magi mag ginnaaw bi mu jógee ci magam Serigne Mamor Diarra la delsiwaat ci magam Xaadimu Rasul fekk booba waajuram génn na àdduna mu jàpp magam xaadimu rasul waay juróom wa di ko liggéeyal ak it di ko tarbiyawu ca Mbàkke Kajoor mu wéy moom maam Seex Anta Mbàkke di xoole Sëriñ Tuuba xaadimu rasul waay juróom wa ba ni Sëriñ Tuuba taxawale yoonu murit ci atum 1883 mu wéy di ànd ak magam ju tedd ja ba ni ku tedd ki ñëwee ci Mbàkke Bawal ginnaaw Mbàkke Bawal Daaru Salaam ginnaaw Daaru Salaam dëkk bu sell bi di Tuuba almahrusa ba Sëriñ Tuuba taxawale dëkk bu sell bi di Tuuba la fopp Daaru ak ngërëm ci teewaayu Serigne Dame Abdourahmane Lo moom borom gaawaan bokk na ci magi murid yi fi njëkk am ab dëkk ak it njëkk fee doon ab seex am na borom xam-xam yu wax sax ne moom la Serigne Touba njëkk a toftal mbooloo booleeg jox ko dëkk mu wëy di nekk nag Daaru Salaam di liggéey lu mu am yut ko magam ju tedd ja Xaadimu Rasul ba ni Serigne Touba bàyyeekoo Touba dem Mbàkke Jolof mu wëy di nekk Daaru Salaam ba ni Serigne Touba demee ci tukkib géej gi yeble woon na ngir mu wuy si ko ca foofee di Gabon ndaw loolee mu yeble woon di Serigne Mouhamadou Lo Dagana moom la yebaloon ci maam Cheikh Anta ngir mu wuy ko ci dëkk boobee di Gabon ci ndigalu Xaadimu Rasul ginnaaw ba mu yeewu ko ngir mu dellusi waat Daru Salaam toog xaar ko ba ni Serigne Touba jugee ci tukkib géej gi jaar fu bari ci dëkk yi door a ñëw Daru Salaam ci ngan gu mu doon amal ci rakkam ji di taalubeem di maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan ak Daru Salaam ngan ga daal di tàmbali ci ñaar fukki fan ci weeru kor yi ba ñaar fan ak juróom-ñett maam Cheikh Anta ca la ko daal di gënalee nganam gu réy googee ba ca la ko magam ja xamalee ne Cheikh Anta lépp mat na ngan googee nekkoon diirub juróom-ñetti fan bokk na ci tamit moom la Serigne Touba sasoon lépp lu jëm ci këru daaru mannaan gi ba ñu koy defaraat mook maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñeneen ngir ñu wuti ay lal ca Ndar bokk na ci it ci doomu aadama yi njëkk aji màkka ci yoonu murit sancoona tamit ay dëkk yu baree bari bokk na ci yooyu la dëkk Sanjara ak Kaolack ak Daaru Salaam ji ko magam ju tedd ji dëloon ak gaawaan nekkee ci Mbacké Bawal ak beneen gaawaan bu nekkee ci département bu yi ak ñaaxeen ak yeneen i dëkk ngir jàngale ak tarbiya waaye tam terewul noonu la bare ay kër ci biir réew mi tayit njabootug Serigne Touba gi amoon kolëre lool ak seen waajur wi di maam Cheikh Anta seexal na tamit ay nit ñu takkoo takku bari woon loolu itam ay turandoo ci ëttub xaadimu rasul bi maam Cheikh Anta Mbacké fan ci weeru tamxarit atum 1360 ci gàddaay gi dëppoo ku le 30 janvier 1941 ci dëkk bu sell bi ko magam ji féetale woon di daaru salaam ginnaaw tawat ju ko dëraloon ku ñuy wax sëriñ Mor Faati Touré di rakam di jarbaatam moo ko taxawu moo ko jullee jébbal ko boroomam ci bërëb boo xam ne euh, fa la sëriñ Touba Xaadimu Rasuul nekkoon ci ngan ga mu doon amal ca dëkk bu sell bi di daaru salaam maam Seex Anta Mbàkke boroom gaawaan ak daaru salaam yal nañu ko yàlla fayal yal na suñu boroom yokk taas ñu ci barkeem mbirum sëriñ gaawaa nu yëf ci baatin mbirum sëriñ gaawaa nu yëf ci baatin sëriñ Musaa mbirum sëriñ gaawaa nu